li waral nag jataay bi ñu def ko commissaire mooy mairie askan wi fa moom bu fekkent ni yàlla dogal na ngay liggéey ci police Mbacké liggéey ci liggéey bu rafet ànd ak say collaborateur mel na commandant Fall ak ñaari inspecteurs yi nga àndal inspecteur Sène ak inspecteur Sarr ak sa collaborateur ñi ngi àndal muy chef ñang ak Leyti ak ñeneen ñi ñëwul kon war nañu mën a organiser lu mel nii may population yépp képp ku bëgg a wax wax li mu xalaat ci fanam ndax fii lañ ko war a waxee ndax fii mooy vitre ñëpp bopp yàlla dogal muy dëkk muy am réew ci àddina bépp nag fu la ci ëpp sécurité moo la gën a développé ndax moo la ëpp attractivité nga am réew premier critère bi ngay njëkk a seet pour mën faa investir baa nga dem pour dëkk fa mooy d'abord na am sécurité ndax bu sécurité amee rek mooy am na ay loi et règlement yu wér yoo xamante ne mën a assuré li nga xamante mooy dund mi moo tax ñu ne pour am réew développé il faut ñaari jéego bu ci njëkk mooy ay institution yu forte te sécurité mooy base bi ak secteur privé bu dynamique bi dox te gis nañu jéego yi ngeen def ci wàllu sécurité bien vrai que moyens yi manqué na ci fànn yëpp wante tréewul géré ngeen ko liggéey boo wax dëgg yàlla ñëwuñu dëkk yu bari ci sécurité sécurité nag muy rôle policier nga xamante ni mooy agent de force de l'ordre bi gën a jege askan wi seen rôle ba ci njëkk mooy d'abord encadrer nit ki xelal ko conscientiser ko ba bu nekkoon ci lu dëng mu jóge ci dem ci lu jóg ba bu doon def lu mu wartu def ñu xamal ko ba du ko defati mais jàng nañ ñu ndax man yàgg naa nag ak police ndax 98 laa njëkk am contact ak autorité foofu liggéey ñu ba 2004 la am am médaille d'honneur de la police en 2004 loolu yàgg ñu la médaille d'honneur de la police en 2004 kon jaxasoo naa corps bi bu baree bare mais aussi gis nañu aussi yar ak teggin ak dal ak intelligence bi ngay liggéey population yi ba réglé lu bare bare bare bare bare bare loo xam te ni doo la ko doon réglé nga réglé ko ak xel ak waxtaan ba mu sotti te loolu foofu la àddina bi toll ndax bépp koor wala bépp activité bu mën a doon rek dañ caa soxla intelligence ak it waxtaan kon ci turu Mbàkke ñu ngi lay ñaanal yàlla ba fee nga jëm nga am fa promotion kawe yi nga am nag ñii nga fi bàyyi tamit yàlla daf leen ndam ak sutura fi ñu bëgg ak ñoom commissaire bi lay remplacé suñu borom defal ko clairvoyance ba li nga xamante ni yéene ci dëkk bi ay kilifaam yéene ko ci dëkk bi ba indi ko fi ñu gis ko fi sociologie Mbàkke ak Touba nag dafa wuute ak yeneen dëkk mais heureusement ba ñu ëpp ci seen xam-xam ci wàll boobu la jëm njàng askan xool na nga ko approché na nga ko intégré ba liggéey moom te li nga bëgg nga mën fa naa Dakar def naa Thiès def naa Mbour bu zone bu zone bu bu gën a am problème ci mais yow franchement gis naa ci yow ay qualité yoo xam ne xam naa ni fa nga jëm incha allah ndam nga fay am te ni ko monsieur Dia waxee léegi am yoo xam ni surtout création bu bees ñu ko jox tous ku expérimenté lañ koy jox ku xam lu muy def man li ma collaboration collaboré yow fii as néew xëy na maa la fi jiitu tuuti doo liggéey nañu ay dossiers yoo xam ne yu confidentiel yoo xam ne te dara damu ci dara dara dara amu ci problème loolu sa maturité ak sa expérience professionnelle moo tax mais ñëpp xam nañu wàllu suuf lu lu doy waar lu compliqué la am na ci façon dossier bu ne maa commissaire seq nañu ko yëpp a jaar ba fii wax bërki dem nga moo jéego tey fan ñu am un ñu réglé fii entre deux yu mag fii ci dëkk te kenn loo xam ne sama xel dal na sama xel te ñaan gi ñu fi ñaan la yàlla la topp fa jëm yàlla la yàlla la gënal sax fa nga fa nga fi nga jógee te xam naa ne boo fa jógee di nga am promotion insha allah Bécaye Diarra jaar na jaar na fii Mbacké commissaire jaar na Touba bi mu jaaree Touba fi la ma fekk sama promotionnaire la yow defaloo classe yow dugaloo lycée ba demaloo université tànk yooyu mu topp ba Diagne remplacé ko fi Modou Diagne ba Modou Diagne yóbbu ko Thiès sama dëkk moo ko fay fekk bekkaay ci boppam la jëlee ndar dégg naa indi ko Thiès yow liggéey bi nga jëm dama lay ñaanal doo fay yàgg ñu indi lu Touba fi nga ne comme c'est commissaire lu Touba incha allah jërëjëf. ku neex a gunge la ku neex a àndal la te ku neex a gunge da nga yëngoo fu ne liggéey nañ ci couvre bi ay yoon yoon wala ay weer gis nañ li bare bare bare ci jafe-jafe vingt heures ba six a du matin am nañu bare duñ ko mën a wax ci micro moom ci doon jàppale ci liggéey bi doon liggéey ci couvre bi nun ak waa police ak ñeneen ak ñeneen kon dinañ ñaanal suñu borom defal la tawfeex fa nga jëm gàttal la fa promotion la yàlla na suñu borom jox yeneen dara yu gën a kawe bi nga xamante ni monsieur le maire sargal nañu ko sargal ko mais li ma mën a wax mooy tout le mérite vous revient parce que mission bi ñu fi réussir commissariat urbain de Mbacké doomu Mbacké moo ko nangu bu ko nanguwuloon gàcce ngaalaama bi ngeen di wax ni du fi am chapeau ba à la population de Mbacké li ci li may ci dolli ñaareel kàddu mooy commissaire Diallo mi ñëw ni ngeen gungee commissaire Diédhiou ba mu ñemee bëgg naa ñun ñëpp ñu ànd gunge ko ba mu ñeme ñetteel bi mooy commissaire Modou Mbacké Diagne ñëpp xam nañ ni doomu Mbacké la li ma leen di ñaan mooy ngeen may ko mu liggéey ndax tey Sénégal commissariat fu mu munti nekk moom moo leen yilif tollu na place bi nga xamante ni tey placeu tànneef la su ngeen ko jàppalee mu liggéey dina doon général te bu doonee général loolu sax doomu Mbàkke toxu bu naree am ñun ñooy toxu kàddu yooyu laa leen bëgg a dënk